Heavyweight.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 fukki fan ak jëm fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bi ñu weesu lu ko dalee ci zéro heure ba cinq heures du matin zone ñu ciblé woon nag mbëbës ci la bokk zone de recasement ci la bokk Serigne Diop ci la bokk terminus bu 54 ci la bokk Mtawa ci la bokk suufu montagne ci la bokk ak fi ñu naan mbaaru Serigne Touba descente boobu nañu def ci zone yooyu yëpp muy ay zone yi nga xam ne nii def katu ñaawteef yi yàgg nañ fa laqatu di fa def njombe tax na ba ñu teg ci loxo lu toll ci juróom-ñetti fukki nit ak ñeent waaw leen góor a waay teg loxo tamit cinq cent grammes ci ñax mi ñu naan yàmba teg loxo juróom-ñetti paaka fukki kub kub ak ñaar ak benn a revolver boo xam ne calibre vingt-deux mètres la ak liggéey bu rafet boobu ñu def yëpp nee nañu nag opération de sécurisation boobu dañ koy wéyal <laughs> ma ne moo war a wéy ci réew mépp moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca Cees romb na doy waar ab waay moo fa jàmpaaka jabaru baayam du mu tàggool fi mu ne mu ngi ci diggante dund ak dee musiba naaru lay ndaw si ñu agressé nag nee ñu ab enseignante la di ab surveillante tamit ci CMR 102 nekk fu soriwul loolu ak hippodrome njaw ma Codé Diop nekk ca commune bu Thiès Est agression boobu tamit nee ñu mi ngi xewee ci béréb bi ndaw si doon liggéeyee maanaam ci sem bi mu doon jàngalee fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bi weesu la xew-xew bi dal am ki def njombeli naan nee ñu ab ancien militaire la di benn doomu haut bu nekk ci police moom daal moo fekk tantam bi baayam tàggool ci bérébu liggéeyukaayam dal di koy jam ba mu nekk ci diggante dund ak dee ba fi mu ne ndaw si mu ngi ci hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès mu tax fi mu ne mbokki ndaw si ak syndicat enseignant yi taxaw nañu temm ngir mbir mi leer saisir nañu sax parquet pour tentative d'assassinat ancien militaire boobu nag jam tantam ja woon fi mu ne kenn xamul li tax mu jam tanta <laughs> ma ne ko dina leer de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew moo gën a graw corona laa wax la xew ca buun romb na doy waar as njaay di am ndaw moom la iloo jam paaka ba mu nekk ci diggante dund ak dee iloo bi mu ko jamee paaka sax dem nañu ba yaakaar ne as njaay ñàkk na bakkanam waaye fi mu ne mi ngi ci hôpital a Pouye di sibir ay soins intensifs moo tax xale buñ bi ñu yegee mbir ma fox la ñu def riir dem wutali ci ka def njombe ji jàpp ko dóor ko dóor yu metti ba mu jëlee ci ay gaañu gaañu yu metti suñu force de défense et de sécurité yi ñoo ko mujj jël gannaaw bañ ko yóbboo ci ab centre de santé fi mu ne ñu ko garda wii ci commissariat bu Comico <laughs> ma ne réew mi de léegi dafa mel ni kaani la ñu sotti ci réew mi jam paaka jam xeex saaga cuuki jam xeex saaga cuuki ay waay féexal leen xol yi mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz